Quench. Quench. kii waaye baa ni ngay def waay li mu doo am combat. combat da ngay doore doo am combat. lamb ji day doore quoi. tanoor tanoor bu lam man bu ma loon mbër buñ ma ko joxee damay bañ de. combat ak Sanda taxawoon na. waaw Sanda na bàyyi mu seede ko. Ah? loo koy conseillé Sanda. ah. loo koy conseillé kese loolu mooy waaji gaay bu ñuy dawante lamba ji ñu ngi naan lamba ji day yàqu mais lamba ji si mbëri la gaay yi nga xam ne ñoo war a may booy chance ñoo leen mayul chance parce que ñoom biñ si dañ leen mayoon chance mais gars yi booy ñëw war a fëla pour ñu may chance ñu booleke yoon wi loolu tax lamba ji métti da ngay ñaan chance xanaa ñu booleke waaw ñaan chance ñaanuma chance kenn Yékini wala guy gi daal laay ñaan chance Sokh Franc dafa ñëw indi état de forme bu garaaw alxuraan bu ma moo loolu ma si wax dama koy gisul mais bu mu taxaw dinaa ko fekk dañu war a bëre parce dañu war a bëre max moom dañu war a bëre tamit dañu war a bëre kese moom laa gis bu ma jëlul du keneen du fi bëre keneen keneen kum fi bëre dinaa dem sa géew ba na duñ fi bëre dégg nga boo amee combat keneen man damay ngeen mu demee sax dégg nga waaw yéen ñaar ban problème ngeen am amuñu benn problème dañu xaw a bokk benn paa rek da ngeen a war a bokk. dañu xaw a bokk benn paa quoi mooy loolu. waaw.